bëggoon ñu waxtaan tey ci benn tomb rek tomb bi nag xam naa bu diis lay doon ndax sëriñ bi da koo tànn tey jëmale ko ci sëriñ daara yi waxtaan ak ay sëriñ daara nag moom lu diis lay doon waaye danañ jéem dafa bëgg rek ñun sëriñ daara yi ñu gën a bàyyi xel waru gar yi nga xam ne jàngalekat bi dafa gàllu ci kawam te tomb bu am solo la man sax xaw ma nan la ko xalaate ndax day waxtu wi waxtu wi day waxtoom ndax yaakaar yëpp fenn dong la des fi mu toll nii muy daara yi fi la yaakaar yi des yaakaar yëpp mbedd mi yàqu na kër yi yàqu nañ yaakaar yëpp ñu ngi des ci daara yi kon buñ sàgganee ba daara yi yàqu yëpp lépp yàqu kon xamaat bu baax a baax suñ bopp xamaat bu baax a baax ma lan mooy suñu liggéey loola lu am solo la ndax dafa am tur wu ñuy faral di jàng lu bari ne yonent bi moo ñu ko tuddee moo ñu ko jox te bàyyiwuñ ko xel dañu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daa wax ni xayrukum man taallama alqurana wa allama loolu la ñuy tiitaroo ñun sëriñ daara yi sëriñ daara boo wax ñaari baat ñett rek mu ne ah du ma sama de yonent bi nee na xayrukum man taallama wa allama hmm? daal di koy bàkkoo waaye fekk na waroon nañoo seet yonent bi lan la wax dëgg-dëgg xayrukum man taallama alqurana taallama alqurana nag lu yaatoo yaatu la te lu baree baree baree baree bari da nga ko fekk si biir alif ak laam googu ànd ak alxuraan ñi xam balaaxa xam nañ li may wax bu baax a baax man taalamal alxuraan boobu yemul rek si man daal mën na maa tare alxuraan baqara ba naa si déedéet yemut si loolu dong waaye yonent bi bëggoon ku mën a tari alxuraan baqara si dëgg la bëggoon na it moom yonent bi mën a ku ko mën a jàng dëgg la bëggoon na it ku ko mën a jàng mën ko it maanaa bind mbind mu rafet bëggoon na ko waaye bëggoon na it maanaa ku dund alxuraan si ay cëram moom yonente bi ku jàng alxuraan si ay cëram koo xam ne boo xoolee jëfam day tari ay aaya alxuraan su jëfee rek nga mën a wax benn aaya ne lii la jëf koo xam ne su waxee nga mën a jàng benn aaya ne lii la wax yonente bi bëggoon na bëggoon na loolu bëggoon na koo xamante ni nii dafay dund alxuraan si ay cëram tott biix ko loolu bëggoon na ko baax a baax waaye jàngale gi it loolu la si bëggoon bëggoon na naam nañ ko jàngale xale yi mokkal ko baqara ba naa si nañ ko mën a bind moo indi woon maanaam beq yi mag ñi daan def moo indi woon mbindum kaamil yi ñu daan def nañ ko mën a bind waaye bëggoon na it manaa nañ ci yar xale yi ba jukkowoo alxuraan bëggoon na it loolu nañ yar xale yi bañ jukkowoo alxuraan loolu bëggoon na ko baax a baax comme bu ñu yontu bi ne yéen fi gën loola sas la dañoo war a seet bu baax a baax nag lam yàmboo yëpp maanaam sa biir te it dañoo métti woo métti woo xam ne ñun mboolem métier yi dañoo wax ne métier bi nga xam ne moo si gën si métier yi mooy métier woo téere bi yàlla bii donte dana la siy fay fay ko dara gënu ko Sëriñ Tuubaa bind na ko fa xayru ma taqastum alayhi ajra leex bi tambihi li gën si li ngeen di jëlee ak pay si métier yi mooy métier woo téere bi yàlla bii nii kon su fekkee dañ ñoo wax ne ñun ñooy ñi gën ñoor métier mi gën ah war nañu seet bu baax a baax a baax nag suñ bopp war nañoo xamit maanaam fan la ñuy taxaw bu baax a baax kon waxtaan wi dañ koy tënk ci juróom-ñaari tomb juróom-ñaari tomb yooyu gannaaw temps bi dafa xat te ay borom xam-xam yu mag ñi ngi fi ñun danañ ko ubbi rek leeral tuuti bàyyi leen nag ñoom si temps yi xaar yi ñu gën koo komanteer bu baaxa baax moom juróom-ñaari tomb yooyu. mooy ki nga xam ne mooy jàngale alxuraan dafa war a bàyyi xel ni amoon na sëriñ daara boo xam ne moo ko fi jiitu woon di sëriñ daara bu mag ba téere bi wàccoon na si moom kooku mooy yonente bi mooy sëriñ daara bu mag ba téere bi si moom la wàccoon. léegi nag soo bëggee jàng alxuraan faaw nga jéem a soo ko bëggee jàngale faaw nga roy sëriñ daara boobu faaw nga jéem mel ni moom mooy li jiitu moom nu mu meloon kaana xuluquhul quraan moom de noonu la meloon moom jukkoom moo nekkoon alxuraan alxuraan la daan waxe alxuraan la daan jëfe alxuraan la daan doxe moom la daan tooge di ko tëdde kon sëriñ daara bi faaw mu fexe it moom si boppam alxuraan di jukkoom ñu gis ko maanaa si moom te la koy may mooy la sëriñ ba wax ci masaalikul jinaan ne wa kullu wasfin fiihi madxu rabbina ibaadahu tasif bihi wastahjana kulla sifaatin xadnaha al ibaada anha wa bi ba bépp melakaan bu baax boo si fekk suñ boroom tudd ko li si tagg maanaa ay jaamam jàppal ni melokaan wa nga jëfandikoo ko waaye bépp melokaan boo xam ne gis nga ko si alxuraan yàlla ñaawlu ko bon lu ko tere ko jaam yi mu gën a bëgg ma a melokaan woowee tamit yow na nga ko watandiku lii soo ko jukkoo sa jukko daal di nekk alxuraan nga nekk alxuraan mu sotti si wax ak jëf te sëriñ bi jàngale loolu rek ko war ndax moom mooy ki nga xam ne saa yu juumee ba fa kastalu ñu bari danañ fa kastalu ànd ak moom daanu iza zalla aalimun zalla bi zillatihi aalamun aalim bi saa yoo xamante ni maanaam wàcc na yoon saa yu tarxiisee ba daanu àdduna yëpp ñoom danañ daanu ndax moo nekkoon seen doy téef moo nekkoon ki ñuy xool moo nekkoon ki leen doy kon bu sàmmul boppam bàyyiwul xel boppam ba dugg ci yenn yi dana daanu daanewaale ñu baree baree bari la waykat ba wax ni wa aalimun bi ilmihi lam yamalan muazzabun min xabli ubbaadil wasan ki xam te jëfewul la mu xam ba na ñuy mbugal ëllëg ñu naan jaamu xërëm moom la ñuy njëkk a mbugal jaamu xërëm li muy rëy rëy rëy ak li muy diis diis ci suñ boroom xam ba pare jëfewul la ngay xam moo ko gën a diis kon ñun ñin foog ñu ñooy ñi xam yor daara yi di jàngale ñun de lañu war mooy li ñu xam lépp ñu jëfe ko doon alquranul karim ndax dañuy kii euh, xasan basri moo ko waxoon xasan basri moo waxoon ni lawlal ulamaau la saara naasa mislal bahaim wala boog la saara naasu ndax naasu xëy na ismu saara lay doon kon la saara naasu mislal bahaim dafa waxoon ni moom xasan basri bu dul koo nag boroom xam-xam yi nit ñi danañ mujj mel ni ay bàyyima bu dul koo nag boroom xam-xam yi nit ñi danañ mujj mel ni ay bàyyima kon tey ñun war nañoo bàyyi xel suñu bopp bu baax a baax ndax day mel ni kon saa yu nit ñi nekkee bàyyi ma rek ñun am nañ sa responsabilité ñun suñ bopp ñu borom xam-xam moo tax jamono ji boo dee xool nit ñi ñuy dund comme dunduk bàyyi ma ñii nekk ay njaay àll di fàdd ka rey rek wax sandaria hmm, ñii nekk ay seytaane rajim loolu bu ko dee xool suñ jamono jii nii te ñun jàngalekat yi ñu nekk fi. te ñu ne woon te dañ la waxoon ne nit ñi yéen yéenante nit ñi nekk ay bàyyi ma kon suñ fi nekkee tey ñun nit ñi nekk ay bàyyi ma war nañoo seedaa suñu bopp bu baax a baax dëgg la nag dugguma si innal lazina xaqat alayhim kalimatu rabbika loolu bàyyi naa ko xel bu baax a baax waaye nag maanaam ak loolu lépp it jotee ñun li ñu war ñu def ko jotee ah, li ñu war maanaam ñu def ko bu baax a baax kon jàngalekat bi kon li njëkk mooy mu roy jàngalekat bu njëkk ba te mooy yonente bi su mënee nekk moom kiy jàngale ku mokkal alquranul karim moo sa gën moom miy jàngale ndax dëgg la am na ñu ko mokkulul di ko jàngal di jàngal ba ay nit bañ mokkal loolu gis nañ ko waaye nag ak loolu lépp su mënee nekk maanaam ku mokkal moom loola mooy li gën mokkal ko maanaam mën koo bind it mbind mu rafet li xew ci jamono it bu ko fekkee mën na ko see boole xëy na sax yàgg na waaye dañ ciy soog a jot maanaam muy li nga xam ne moo xew léegi di almu tajwid bi it mu xam ko moo xam da koy jàngalee taxqiqan moo xam tartilan moo xam xadran moo xam tadwiran ak yes ak yëpp maanaam sa biir diggante izhar yaag ixfa yaag idxaam yaag xunna ak bi yëpp moo bàyyi ko xel loolu ko mënee boole xam moom miy jàngale maanaam mooy li gën te yomb na bu baax a baax ndax téere yi koy jàngale bari na façon yi ñu koy jàngalee itam yomb loolu bari na ba soo duggee si internet bi yaa ngi dégg arab yi di ko jàngale si façon jàngale yu leer ak seen kàddu di ko tudd seen i kàddu maanaam mu leer maxaarij beeg yëpp ak atte yi ñu koy jàngale da nga ko fekk maanaam si net bi kon gëstu ahkaam yooyu lu yomb yomb la fi mu toll nii doonatul lay si benn sëriñ daara kon loolu sëriñ daara bi su mën na koo xam boole ko maanaam si lu am solo maanaam lay doon ndax mooy rafetal maanaam njàng ma sëriñ daara nag moo sonn ndax lim tànn tax kon faw mu góorgóorlu te muñ la waa ji wax ni wa mahmastaxala bi mi faqad taqallada amran aziman wa xataran jasiman dafa ne saa yoo jógee ibi daara ne dama sosoo jàngale moom laa gàlloo nee na gàlloo nga mbir mu rëy rëy mbir mu ànd ak xatar ay dansé yu bare bari gàlloo nga ko kon nag suñ duggee si warteefu ñaareel bi wax nañ benn bi ñaareel bi buñ si duggee kii jàngale dañu wax ni day jaawdi si moom a safaxatu assafaxatu ala almutaallimin wa an yajriyahum majra banihi yow miy jàngale xale yi ngay jàngal na nga am si ñoom yërmande ba suñu la xoolee duñ gis si yow sëriñ daara waaye bàyyi la ñuy gis si yow yërmande yi bàyyi rek lañuy gis si yow lu am solo la xëy na boo ko waxee sëriñ daara mu ne est loolu mën naa nekk xale yi niñ dëgëre bopp maanaam suñ mokkul faw ma dóor leen faaw ma ma tër leen faaw maanaam ma leen faaw ma nangam ak nangam leen ànd loolu lépp rek mën a jooju lu mën a nekk la ndax waajur day dóor doomam waajur si biir kër day jàdd mu ko waaye loolu dox na wolof di léeb naan nag wéq na doom ja waaye bañu ko loola waajur ko daan def danaa duma doomam su paree xamal ko ne ko bañu ma la waaye dama bëgg nga baax dama bëgg nga gën fi kon sëriñ daara bi mën naa jëflanteeg xale yi si yërmande joo xam ne suñ jubalee mu wan leen ko neexal leen jege leen di waxtaan ak ñoom di bokk ak ñoom tamit wan leen ni maanaam seen nawle laa dama leen a fonk man ndax alxuraan ji ngeen jàng moo tax ma fonk leen moo tax ma naw leen war na ko yëgal xale yi ba xale yi suñ jàddee bu leen dóoree sax xale yi dañuy am kersa ñëwaat di ko neexal ngir jubóog moom ngir xam sëriñ bi ni leen yërëmee su buñ sañoon ñoom du leen dóor ndax daf leen a yërëm yërmande boobu maanaam bu am solo la si sëriñ daara bi yonent bi moom mi nga xam ne mooy roté fi loolu la waxoon daa waxoon ni innama ana lakum mislal walidi li waladihi sama digganteeg ak yéen mooy ni waajur demee ak doomam waajur ni mu yërëme doomam man nu ko raw noonu laa leen yërëme man yonent bi bu ko defee wartif bi nga xam ne mooy bu ñetteel bi ndax dañ koy tudd rek di jàll ndànk-ndànk ndax temps bi ak it ñu war a temps liixaat yi wartif bi ñu war a tudd maanaam bu ñetteel bi mooy an yasjura al mutaallima ala suyil axlaq waaye nag bi tariqi taarid maa am kana wala yusarrihu loola mooy lan mooy sëriñ daara bi war nay waxtaan ak jàng ñi muy jàngal xale yi war na leen a jàjj si jukko yu ñaaw yi war na leen si yee war na leen koo tere war na leen a xamal yi xaraam waaye nag ala tariqi taarid si yoonu gaaral nu am solo la gis nga damay faral di wax ne alxuraan boo ko dee jàng foo jàngee wa minan naasi ka yàlla di wax wala ña yàlla di wax xam na ko te moon naa tudd seen tur waaye tudd ko de day wax rek wa minan naasi am na si nit ñi man yashtari lahwal xadiis fekk xam na tur wa de wa minan naasi man yaqulu amanna billahi fekk xam na tur wa de xam na nañ tudd waaye day gaaral rek lu am solo si ab yarkat waxin boobu xale yi am na ko def lu mu wërta def nga dajale xale yëpp jël lam def waxtaan seeg xale yëpp moom ma nga sa biir di déglu nga jàngal xale yi la koo ko def waaraate si yeete si lépp moom mu ngi toog di déglu loolu lu am solo la dégg naa Serigne Touba daan na ko def njaareem su mag ñi mosaan a am ki su juuma rek mu dajale mag ñëpp du ko woo moom dong beral ko ko ndax nit dafa gaaw a yëg boppam dafa amee jukkay bàyyima ju nekk si biiram ñu war ko bàyyi xel waaye day dajale mag ñépp ban daje mu jël la koo ko def da si waxtaan waaraate si yeete si leeral leeralal ko nit ñi kooku dégg sa boppam bu baax a baax ñeneen ñi tamit déggaale si mën a wattandikoo baax a baax kon façon boobu sëriñ daara bi it di ko jëflante ak xale yi lu am solo la ndax njàng mi fi mu toll nii dafa laajatul rek jàngal xale yi nii rek alxuraan nii rek ñuy jàng rek di mokkal rek maanaam baax na lool waaye nag di leen yee ak di leen yar lu am solo la nañ si boole yar xale yi yee leen si doxinu jamono ak yàqu-yàqu yi jàngal leen tamit seen diine te loolu faaw ñu damay wax ne sëriñ daara yi dañoo xiir si alxuraan ji ba nga xam ne ma bëgg a desal lu am solo mooy li taxoon alxuraan bi jóg alxuraan li taxoon ma jóg mooy defar nit kon donte benn bis semaine bi nga am ko waxtaan seek taalibe yi yee yee leen seen diine yee leen si àdduna ak doxinam yee leen maanaam si yàqu-yàqu yi ak ni ñu war def ba mucc yi am solo yi amul solo yëpp ñu xàmmee ko loolu donte benn ngoonu àllarba nga koy def sax si xale yi am na solo weer nekk nga am ko ñeenti yoon am na solo waaye bu njëkk daanoo ko dégg de léegi nga koy dégg danoo dégg mukk bu njëkk maanaam ñu ne njaareem la jànge wala Touba la jànge génn na moo fi def loxoor gi mukk mustaam mosoo koo dégg ci benn daara léegi ngay dégg ñu ne ab dongab daara moo def nangam ji nii léegi rek nga koy dégg mu jaaxal la loolu dongab daara nu mën a defee lii waaye bu njëkk amutoon ndax mag ña dañ ñu daan jàngal daan ñu yar daan ñu yee di waxtaan ak ñun ñun nag ñu dikk ma gëmloo waajur leen danañ ko mokkal alxuraan maanaam si ñeenti at duñ talati nag dara lu dul maanaam xale bi na mokkal alxuraan rek xoolatuñ yar xoolatuñ yee xoolatuñ xam diine xoolatuñ dara xale bi su mokkalee génn suñu mokkal waajur yi suñu yëgee ni mokkal na rek si saasa rek duñ ko fa bàyyi ñu daal jël yóbbu ñee yóbbu Sandaga ñee yóbbu feneen ak feneen maanaam xale balaa ëllëg mu fëtt alxuraan te du am yar du am njub du xam diine alxuraan boo ko bàyyee mu bàyyi la kon faaw sëriñ daara bi bàyyi xel loolu di préparer xale bi xam ni nit lañ ko jox te nit dafa foor te yaakaar ju leen am ci moom ba jox ko ko kon na préparer nit kii ba su génnee génnaale alxuraan génnaale yar génnaale diine génnaale xam-xam alxuraan ja bu rëccee mokkalatu ko yit yar baag diine jaag njub ga des fa mu mën koo jariñoo kon boobu nañ ko bàyyi xel bu baax a baax waaye bokk na si warteef yi wala bokk warugar yi an yaqtasira bil mutaallimi ala xadri fahmihi fala yulqi ilayhi maa laa yabluguhu aqluhu boobu jët bu am solo la mooy sëriñ daara bi na jéeme jéem a xàmmee xale yi fi seeni xel toll ak xale bu nekk la mu àttan ñun dañuy bëgg ñëw rek jël suñ benn règlement jàngale teg ko ci daara ji pour xale yëpp noonu lañuy def pour xale yëpp man daal euh, ba amee juróomi isib moom dootoo bindati mukk lu yées xaaju xaaju sumun boo amee fukki isib ak juróom dootoo bindati mukk lu yées sumun boo amatee fanweer isib maanaam moom danaa jëm a xool ba xam roba mën nga ko bindam déet wala nisif léegi tagal ko nag xale yëpp soo baa faaw nga gaañ yenn xale yi ñun biñ nekkee daara sëriñ Fallou mbay di jàng alxuraan am na ku ñu daan wax garastaar ñu bokkoon nekk sa daara ja moom nisif laan bind suñ Modou Congaan mais euh, xam na ko baax ki may wax noonu galastal moom ni da daan bind bind bu tooy tari ko te du si gàgg man musuma paase bind bu tooy am na koo xam ne sa daara moom mës ta bind bind bu tooy sax maanaa sumun waaw faaw maanaa malaa tibul xoqol yooyu ñu xàmmee ko xel yi ni ñu rawantee hmm? kii lim attan ak li koy attanul lu ko moy looy indil xale bi fit wa dem mu boole si maanaam ñàkk xel xel ma jaxasoo lëj nga koy indil ndax danga koo yen lu àttanul kon di xàmmee xale yi si li ñu àttan wartif la wu rëy rëy ndax lu ko may sëriñ daara bi yàq xelum doomu jàmbur kon faaw nga bàyyee xale yi baax a baax xel si li ñu àttan bi may juróomeele bu koy fee mu des ñaar ñaari tomb mooy wa an yakuna al muallimu aamilan bi ilmihi an yakuna al muallimu aamilan bi ilmihi fala yukadibu xawluhu filahu jàngalekat bi war naa fexe ba ay waxam du waroo mukk ak ay jëfam ndax xale yi duñu ay xale dañuy déglu li ngay wax yow jàngalekat bi buñ la dégloo dañuy seet dañuy xool saa yoo juumee rek ba jëf lu wuuteeg la nga waxoon jàpp ni xale yi xamuñu ko xale yi xam nañ ko te bañ ko xamee nag yàq nga lu rëy rëy rëy yàq nga ko ndax jàngal nga leen fen jàngal nga leen wax loo xamante ni doo ko dund danga koy wax rek waaye fekk jëfe woo ko yëpp jàngal nga ko xale yi moo tax sëriñ daara bi war naa fexe ba sàmm boppam ba lépp lu muy wax loola na ko dund na ko jëfee ndax dañuy wax ni wa kullu man tanawala an wa qaala linnaasi laa tatanaawaluuhu fa innahu summun muhlikum saxira annaasu bihi soo waxee nit ñi ne leen lii kat bu leen ko def lii kat lu bon la lii kat day alage ba ñëpp di ko moytu ñu gestu maanaam seen la sa yow ne na nit ñi dañ la yaree saxira annaasu bihi yow li nga tere woon ne lii bu ko kenn def dafa aram day alage ñu gestu maanaam seen la sa loolu ku nekk war nga koo moytandiku waaye ki si gën a rawati nag mooy kiy jàngale war na lépp loo xam ne dafa juyoog alxuraan ak sunna mu wuteeg loola moom it na juyoog loola bu mu ko wax bu mu ko jëf bu ko xale yi seen ci moom loolu lu am solo la mooy la waykat bi wax ni laa tanha an xulqin wa tëti mislahu aarun alayka ida faalta azimu mu ne bul tere mukk jukko ju bon ji bul tere mukk yoon wu bon wii ba pare ñu gestu maanaam seen le yow nga jaar sa di dem loolu gàcce gu rëy rëy la si yow mi ko doon tere tey it yàqu gu rëy rëy la kon faaw sëriñ daara yi ñu jëfe bu baax a baax maanaam li ñuy jàngale ak liñ doon muy alxulaan ji ndax lu ko mooy kat la ma waxoon si njëlbéen nga léppay ànd yàqu ndax kër yi yàqu na mbedd yi yàqu na daara yi yaakaar ji daara yi su yàqoon léegi luy am la waaja waxoon waaja daa waxoon ni man day ay xar laa fi seenoon ak ay sàmm ak ay till sàmm yi doon sàmm xar yi ba till yi duñ leen jege waaye man li ma jaaxal tey mooy sàmm ya ñoo soppee ko léegi ay till waaw sàmm ya ñoo soppeeku tey ay till mu ne kon maanaam fan la fan la xar yi jëm tey xar yi fu ñu jëm waaw ginnaaw sàmm yi soppi ko ay till <laughs> moo tax kooku daa wax ni waraa'i saati yaxmi ziba anha fa kayfa isa ruaatu laha ziabu juróom-benneelu tomb bi day xaw a dëppoo ak juróomeel biñ jóge léegi mooy alkilimatu ida taqaat fi samxi tilmiisi kal xabbati taqahu alal ardi sëriñ daare bi saa yu maanaa kàddu génnee ci moom dugg ci nopp maanaa taalibe bi kàddu googu day mel ni pepp bu wadd maanaa si suuf pepp su dee ci suuf te suuf sa baax faw rek mu saxal dala kon sëriñ daara bi gépp kàddu goo xam ne mi ngi koy génnee di ko tal maanaam si nopp taalibe bi na ko bàyyi xel bu baax a baax na bàyyi xel bu baax a baax maanaam kàddu googu ndax maanaam kàdd googu dafa am lu bëree bari lu muy jeexital maanaam si taalibe bi bu ko defee juróom-ñaari tomb bi xam ne moo ñu jeexal moom moo ñu dese suñu juróom-ñaari tomb yi mooy faaw maanaam kiy jàngale bokk na si muy royee yonent bi muy sëriñ daara bu mag bi jàngalekat bu mag bi dañoo wax ni fa kaana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yaarifu awdaa annaasi wa maa yasluxu li kulli waahidin yonent bi dafa nekkoon maanaa ku xam nit ñi ak kenn ku nekk la yell si moom faw sëriñ daara bi maanaa xàmmee nit ñi faw sëriñ daara bi maanaa nit ku nekk lan moo yell si yow da bëgg a defar nit kon faw nga xàmmee nit ñi dañu wax ne sëriñ Touba soo masaa na ñëw si daara ji day dugal ñëpp si jàngukaay bi ñuy jàng ci biir njàng mi dana xam ni ñii yàlla séddewu leen alxuraan su njàngee ba agsi suratu mulki mokkal mulki ak suuf mu jàngal leen seen diine dugal leen si daaree yi léegi mën nañ alxuraan lañ sa war a man xam nañ seen diine ñu ngi jàng léegi maanaam liggéey ëllëg bu ñu fa jógee mën a tedd teddal seen njaboot bu la seetee nag gis ni maanaam yow mi mën ngaa mokkal alxuraan mën ngaa am xam-xam jàng téere yi fànn yi ni ñu war a teg loolu lépp nga xam ko mu bàyyi la si daara jamaada nga continuer ñun nag tey loolu lañ bàyyi ñun pour ñun suñ daara yi xale yëpp rek war nañoo tari baqara ba naas mën nañ ko fekk ñi ngi nax suñ bopp loolu mënta nekk yàlla séddiwu ko xale yëpp dafa am sama benn mbokkum daara ku ñu wax sëriñ Mbàkke Mbàkke hmm. maa ngi moom ak si Modou Congaay mais ñoo nekkoon sama magi daara sa a jëf sëriñ Mbàkke Mbàkke dafa maa wax ne ma dañ maa jox dafa am sama xale yi xale boo xamante nii yor naa ko ñetti at waaye pasewul xulance beeg bi falaq ñetti at far na ijji daal ba ak si falaqi foofu la yam nee na waajuru xale ba ñëw dal si kawam yuuxu ko maanaam coow ko xuloo fa xuloo boo xam ne bu ko toppoon danañ xeex keroog daal di foqal sa doom ji maanaam yóbbu ba ma la ko joxee ba léegi nangam ak nangam sama doom daal di yóbbu yóbbu si jeneen daara nee ñu dem ba si ñeenti at xanaa léegi mën na juróom-ñaari at mu delloo si xale ba songoo sa de ngi ne ko ah sama ngóor sa ñaata kaamil la bindagul fi mu toll nii xanaa baax léegi de moom mu ne ko ah waaye daal nee na jàmbaar la góorgóorlu na ba sonn waaye daal mi ngi seen lii laay fi xoree la toll man na ko yor yàtta ne waaja <laughs> mu farij lii laay fi xoree la waaja toll dafa am si xale yi faw nga xàmmee loolu du xale yëpp ñoo ko man waaw da góor góorgóorlu nag def lu nekk waaye am na xale yoo xam ne yàlla sédd na leen ko man mii ba may mokkal alxuraan daaree sëriñ Fallu Mbay si ñoom Modou si Modou Congaan mii fukki at ak benn laa am ñeenti at laa ko jàng ko loolu yàlla mayu ko ñëpp am naa ay mag yoo xamante ni jàng nañ ko fukki at mokkaluñ ko te ñoo bokk ndey ak baay kon kay xel yi tolloowut kon sëriñ daara bi su fekkee mënta xàmmee xale yi lu dul bëgg a wax ni rek xale yëpp dañoo war a mokkal faaw mu sonal boppam te it waajur yi danañ ko jëppi ndax danañ ko wax ne ko la ñu waxoon amul moo tax digge loo man alxuraan yàllaa ko yor yow la nga man mooy jàngale jàngaleel waaye ñaata at la koy mokkal nag moom bu soo yoon nekk xamoo ko loolu mbirum yàlla loolu lañ ko bàyyi xel bu baax a baax kon juróom-ñaari tomb yooyu rek dañ bëggoon faram fàcce di jeexale rek li yonent Yàlla Moussa waxante woon ak suñu boroom dafa waxoon suñu boroom ne ko yaa ihbis nii alsinata nnaasi fa xaala ya muusa haasa shay'un lam astafahu nafsi fa kayfa af'aluhu bika muusa dafa ne suñ borom maa ngi lay ñaan nga téel ma làmmiñi nit ñi naa mucc si nit ñi ak seeni wax yàlla ne ko muusa loolu mbir la moo xam su ma ko doon tànn tànnal ko sama bopp ndax man nit ñi mucc na mucc nañ mucc naa seen làmmiñ yi man man mii seen borom kon naka laa koy defalee keneen nit ñaa ngi nii am na ñoo xam ne dañ maa wedd ni man aw ma am na ñu ne man binduma leen am ñu ne moom ma lii am ñu ne moom ma nga ne yow naa la musal si làmmiñ yi nit ñi kon sëriñ daara bu nekk it lii laa koy jox ab yóbbal na bàyyi xel lii yónteel Moussa waxanteeg suñu borom mooy nag def li muy def te muñ te bàyyi nit ñi nag ñuy wax li ñuy wax nit ñi kat moo leen teel a wax kon bàyyi leen rek maanaam ñuy wax kon li may jeexale rek mooy santaat bu baax a baax sëriñ Abdou Khadir ndokkeelaat ko ci bisam bii bu baax a baax a baax ñaan yàlla yi bu baax a baax mu gën koo jàppale bu baax a baax ndax moom day yéeneem bu sottee ak yéenee ñi mel ni moom lépp dana jag ndax yéeneem yëpp mooy nit loo xam naa ko sànq nit rek na nit baax rek na nit tekki rek loolu rek mooy yéeneem man xam naa ko baax a baax kon yàlla na ko yàlla àggaleel yéeneem àggaleel ñu ko mbooleem ñun ñu ngànk alxuraan di si yëngatu maanaam ku si nekk yàlla na a man loo lëmtale yal na ko yalla maanaam mënal yal nañu yàlla jàppale bu baax a baax zahir na baatin ñu ngi jégalu nag bu amee njuumte ngeen baal ñu ko wasalaamaaleykum wa rahmatullah